après un décès qui euh, plusieurs fois annoncé mais apparemment euh, ci yenn xibaar yoo xam ne ci mel ni Walf moo ko njëkk joxe démb euh, waa Kewloo gis naa ñu confirme ñu confirmé ñeneen ak yeneen am na ay nit ñoo xam ni démb ci li ma waxtaan noonu ci téléphone ci ñu nekk ci zone boobu xam un peu lu mag yi xam lu xew lañ ma wax mooy ba ñu jotee xibaar bi ñu leen wax lañ li njëkk wax mooy ni ni ñu woo ci ñoom dañu ne ni eh, nañ ci def ndànk nañ def attention mm-hmm. ba ñu waxee lool man leen mais bu ñu leen nee dañ ci def ndànk te MFDC ñëpp xam nañu ni boo waxee loo xamee ni jom jàpp nañ du dëgg mm-hmm. ba mettre balaa trent minutes ñu génne démenti eh, wala benn communiqué pour démentir ni lii ñu ngi koy wax te amul bon mort naturel ou mort ci beneen fànn l' essentiel mooy eh, bokk na ci ñu doon indi gàllankoor ci paix wala accord de paix ndax aile euh, bi nga xam ne moom la jiite. Mm-hmm. Euh, maintenant nag il faut peut-être ngeen baal ma c'est un mal pour un bien laa ko mën a waxee yéenewuñu kenn yàlla na yéex mm-hmm. faatu yéenewuñu ko kenn mais sama conviction laay jàpp mm-hmm. ça peut être mal pour un bien euh, kenn du yéene nit dee kenn du nekk ci ginnaaw nit tamit di wax ci ku faatu ci. wàll woowu mais ci ak anam yu ñu nekkee ak ci bërëb yu ñu nekk ak ci situation yu nekk c'est un conflit qui dure depuis plusieurs dizaines d'années am na ñu bëgg sukkandiku ci conflit boobu tey pour mën a def sam bopp wala pour mën a am leneen am na yoo xam ne duñ ko wax ci télé wala ci rajo ndax am na leneen luñ ci xam ci euh, Salif Sadio ak euh, nit ñoo xam ni dañ bëgg profiter un peu de la situation mais que l'État euh, très rapidement essayer de trouver une solution définitive mm-hmm. euh, peut-être parce que bu fi Salif Sadio jógee mm-hmm. am na ñeneen ñuy mën ñëw taxaw nag jël peut-être beneen taxawaayu Salif Sadio mm-hmm. autant hâter le pas pour euh, tenter de trouver une solution définitive waaye li wóor mooy indépendantisme wala irrédentisme euh, ce Sénégal est un unique Euh, frontières yi xam nañ fu mu féete amul frontière diggante Casamance ak le reste du Sénégal. donc euh, mu nekk décès bu chef rebelle bu MFDC di euh, ki nga xamoon Salif Sadio du ñàkk rek bu fekkee am na leen du ci ruusandi daanu leen ko diktal rapidement Lamine Senghor tey si yow lay njëkkee.